waaw noonu la dañu bëri maak moom avant bëri bi dañu lewtoo di dox tuuti yaa de dégg ñu am tuuti patience boo xam ne ku ne mi ngi lii sa morom di xool lu mu indi aussi après arbitre bi waa ñu def na ko ñaari yoon affaire yooyu ñetteel bi nag ma xam ne da xam Modou dafa am lu mu yor te bu ñu ka bi jeexee da koy yóbbuwaat te man xam naa ni tam bëgg naa dara te jàpp naa ne liggéey naa ba lu war ko mën a am ma commencé di dox ci koom di chercher di ay góos di chercher après ma jeyee ko ñu xeex. mu sànni ay góor ñu weccoo maak moom touché na ma man it man touché naa ko ci xeex touché na ma ci xeex ñu xeex mm. après loolu la ci biir xeex bi ma départ di ko jël di ko songo mm. ci biir ci biir xeex bi Boy Niang bi mu ñëwee ba toog ci këram liiraat combat bi amul dara lu mu ci regretté. waaw noonu la xam nga làmb moom bu fekkee sportif nga. Mm. boo bëree combat nga ñàkk ko boo ñëwee di nga ci am seetaan ak xool ay faay. ok dégg-dégg Modou mun na ma daan sax def ay faay man it mun naa daanu def ay faay. ci biir faa yooyu ci ngay xool pour mën a ëllëg nga mën a rectifier sa bopp comprendre si dëgg-dëgg am na staff tamit boo xamante ni ñoom it ñu xool comme man te gis nañu affaire yi ci nekk yëpp hmm. waaw xeex nañ ci biir xeex hmm. yaa ngi dégg man touché naa moom touché na ma yaa ngi dégg départ naa songi ko di ko jëli bu baax xam nga jàpp tànkam mu surux mu suruxal ma hmm. ma surux def trois appui léegi foofu na maa ngi yaakamte jóg fekk moo am ndax sama ñaari ngeem ci kaw quoi léegi ma dugal foofu génn fa xam ne du yomb quoi léegi may fitti pour génn après mu pousse ma. maanaam moom comme ni ma waxoon rek ñu xeex bëri amateur yi kontaan loolu laa ci jublu woon te loolu tamit moom la ñëpp di xaar si ñun amateur yi fa demoon yëpp kontaan nañ te loolu lañ bëggoon yaa ngi dégg Modou nekkul koo xamante ni taay bi dafa gudd donc il faut ma jege ko pour xeex moom mais am na fu xeex bi doon yam loolu moo doon affaire bi moo def dama waroon replier mhm. ñu jaraat xeex bi comprendre ñu commencé ko waat ma amaat ay atu waaw mais xam nga man tamit maa ngi woon ci xeex bi te xeex bi duggoon na bu baax maa ngi woon maa ngi ko doon gis xam nga mhm. te jàpp naa ni rek su ma ko jëlee tànk bi parce que boobu ba may koy jëli fekk na ma gis loxo bi mu dem carrément xool naa ko ba loxo bi ma esquivé ko ba mu dem su ko jëli quoi mais dama jëli daal may suruxal quoi mais noonu la ba bëre moom boo boo juumoo ci bëre rek da ngay daanu quoi incha allah. Mhm. ok euh, euh, pour ñu génn ci combat bi bi ngay songi Modou da jël coup bu la kawaloo pour nga songi wala bi ngay songi da nga gis lu leer pour dem. non dëgg-dëgg jëluma ko ci bu may song parce que moo doon na ma épée mais nekkul lu ma kaaw. parce que bu ma dóoree ba après kon nawaat naa xeex génn dóor ko ay arrêt droite ñaar ñett yooyu donc su fekkoon dama jël court du ma mën a xool bu koy dóor ay arrêt quoi donc su ma jëloon court tamit du ma ko xool ba loxoom jóg ma soog ko song quoi donc dëgg-dëgg dóor na ma uppercut mais jëluma coup boo xam ne dafa ma gaaw yàlla xam na ko dama ko jëli mais ba koy jëli boo xoolee sama tànk dafa raaj xam nga suuf arène nationale bi léegi bëreetul ñu ngi naan dafa bëri mais dafa dem ba wow quoi léegi boo xoolee vidéo bi nga xool sama tànk dafa écarté bu ci ginnaaw dafa écarté bàyyi moom it mu suul xool ma parce que bërikat la quoi mu kepp ma foofu quoi mais noonu la ci biir bëre lañ la ma jumloo ci biir bëre la ma daanee te sant naa ci yàlla amul benn problème incha allah. Mm. ok euh, bi nga jàppanteeg moom lan lan nga yegg si moom. waaw mbër combat bi daf ko waaj man ma waaj ko te ñun ñaar ñëpp dañ fonk combat bi. yaa ngi dégg moom mu am titre am bëggul mu dem man it ma bi donc waaj na ma waaj. yaa ngi dégg bëre nañu xeex nañu amateur yi kontaan nañu daan na ci bëree amul benn problème maa ngi yàlla bu baax incha allah. Mm. ñi ne xeex bi bi mu démarré Modou dala woo ci xeexum mbedd. te Boy Niang xeex bi mu man mooy xeex bu dal xeexu boo xamante bi ni buñ réglementé quoi am ñu bëri tamit ñu ngi wax ne booy Niang benn loxo lay xeexee loolu tamit eh, yaa ngi dégg écho yooyu wala. waaw noonu la xam nga làmb moom chaque instant rek da ngay dolleeku man critique bëgg naa ko ci làmb quoi ci làmb quoi parce que dama jàpp ne boo ma cri Modou rek dama war a xool li ma wax ma dem wuti quoi li ma amul ma wuti quoi. dama ko rek critiquer quoi parce que critique moo lay yóbbu ci kaw quoi. Mm. te amul benn problème gars yi lu ñu ciy wax ci làmb yëpp man dama koy déglu surtout ma déglul gars yi dañ ma koy yeggee te sama papa mbër la suma ay famille ñëw xam nañ li muy def baax xam nañ ni aussi du ma manqué dara dinaa fexe am ko quoi incha allah. Mm-hmm. bi nga dugg see parce que ñun dañu xool ne combat Modou bi mu génn ak combat bi dañu gis ne Modou mystiquement boog ñun xam nga ñun moom des fois dañuy xaw a seetlu yenn ruq yi dafa pare. dafa ñëw làmb si man na ne bii passé da koo xawoon a yolamal mais bii kon li mu doon wax ne bëreeg boo ñaa moo gën a jafe yow amoo bi nga ñëwee ba seetaanaat làmb yi gisoo ne waa ji dala doon na xam ne dafa làmb si. non Modou waaw non Modou si ci làmb la dëkk champion la xam nga ci làmb la dëkk quoi xam nga parce que làmb tamit dafa am mu àndal. Hmm. te fonk na ko def na ci li mu war a def ñun aussi fonk nañ ko. Hmm. def nañ li ñu war suñu mbokk dem nañ fi ñu war a dem yëpp. bilaay bàyyiwuñ dara làmb ji dem nañ fi ñu a dem yëpp. Hmm. fonk nañ ko bu baax liggéey nañ ci bu baax aussi ma gars yi may liggéeyal ma xam nañ bu baax a baax xam nañ ni dal nañ ci ay coono liggéey nañ bu baax a baax ah, comme niñ ko waxee rek bisu am moom ak bisu ñàkk bokkul boo ñëwee bisu am loolu teg rek dafay nooy daal lay dem waaw boo ñëwee nag ginnaaw tardement yi par ñàkk pare bi yëpp yëpp da ci joué parce la rek suñu borom moo ne tey doo ko am